nag kenn dootu ko présenté parce que série bi muy joué euh, dañ koy seetaan bëgg nañ ko ci teint noir am bëgg nañ ko ci ay délire ci TikTok bëgg nañ ko ci rôle bu muy joué incarné ko mu réussir ko may Fatwa Fall euh, su ma waxee Fatwa Fall ndax yéen a mën ngeen réer tuuti mais su ma waxee Sadia mën ngeen ko mën ngeen ko xam ma bàyyi loolu nga nuyu ak internet si ñu seetaan ak say fans. d'accord asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi may seetaan di nuyu ñëpp di leen nuyu yéen di leen dalal ak jàmm waa Sénégal soyez les bienvenus à Khar Média maa ngi nii Sadia Renom Fatwa Fall euh, je suis actrice comédienne di évoluer ci maison de production Khar Média Sénégal donc je suis là votre Sadia nationale. gis nga waaw gis interview wala. Euh, non j'ai fait des interviews. Mm -hmm. mais plus internationales. dans le cadre du théâtre. d'accord mhm. alors kañ nga commencé kañ nga commencé dugg déjà ci cinéma bi sama la doon laaj. Hmm, cinéma je dirais plus précisément en 2012 laa commencé def ay figuration cinéma carrément mais concernant les séries j'ai commencé avec Har euh, Media mhm. dans la série euh, Belle-Mère j'ai joué aussi avec Marodi ci Jigéen. Mhm. voilà et là je suis l'actrice principale de Jabaru Góor gi. cinéma bi nan nga ci duggee en tant que figurante ban série ban ban ban ban film nga eh, eh, dugg wala ban film boo xam ne. concernant les films bah, honnêtement je ne rappelle plus. mais film carrément cinéma. long métrage. long métrage. Mais de base, moi, je suis comédienne. Okay. Comédienne depuis euh, à bas âge. J'ai commencé à l'école primaire. Et euh, du ñàkk nga am ay relations donc c'était mon métier carrément je faisais le théâtre carrément j'ai fait des formations j'ai eu des diplômes j'ai eu même à former et avec ma voix machallah j'ai eu à faire des doublages de voix okay. avec le slam aussi j'évolue là-dessus donc ce qui m'a permis d'avoir des relations concernant le cinéma et tout et vous savez très bien que ils sont toujours à la recherche de profils. Parfois, ils sont intéressés par ton temps, par ton jeu, etc. etc. Donc, du coup, j'ai évolué carrément là-dessus comme ça. Mhm. depuis qu'on y a depuis ouais, yag match, ouais, yag match. D'où le best là. Non. Moi, t'as dit, il y a alors ñu bëri ñu bëri TikTok la la lan la jëkk a xamee. ah figurante ko mënoon ñu loon xëy na ràññee ci yenn jigéen tamit série la bu Mbako di doon dawal mais mais mais ci sàdd si TikTok bi. Mhm. la nga gënoon active si lañ nga gën a ràññee ci ñenn ñi. Mhm. Euh, la lan la feeling la da nga cee duggee feeling wala pour amoon tour non au début c'était juste un jeu. mais aussi c'était un peu du sérieux parce que moment boobu y avait euh, période Covid bi donc normalement il fallait faire quelque chose mhm. ci koo xamante ne tàmm na di dem répétition tout le temps di nekk sur la scène di di def ay atelier par exemple wala di jouer wala di prester donc euh, ñi ma xam souvent dañ doon commentaire di ma wax que xanaa ci TikTok bi ngay répété donc je n'avais rien à faire donc TikTok baa fi woon donc j'étais à l'aise dans ce que je faisais donc ça a commencé comme ça ba ma commencé am public petit à petit petit à petit y a des gens qui me disent aussi que Euh, ci TikTok bi la la xaar média gisee or que j'ai fait des films j'ai fait j'ai fait j'ai fait juste TikTok bi c'était comme ça de belle-mère voilà voilà c'était avant le TikTok parce que j'ai commencé je dirais à peu près le TikTok vers 2020 début 2020 et cetera. yàggul donc un an rek la. oui donc léegi cinéma bi lan moo lan moo xëy rek nga ne non lii dama ko bëgg a def sama métier. non pour ça d'abord c'était une passion. avant le métier. D'accord. C'était l'amour d'abord avant le métier. Donc entre guillemets, je dis le talent aussi ak euh, euh, quelque chose de très fort am na benn liaison par exemple don la ci yow boo nee la talent nga amoon don bi wala voilà c'est ça exactement mhm. ñu jox ko aussi ak xam nekk ci scène bi pendant des années tarbiyu ko peut-être loolu moo indi lii mhm. lan nga ñu ko lan nga ko joué mu neex la loo xam ne frappé na nit ñi par exemple à la télé oui wala même bu nekkul à la télé loo xam ne def nga ko nit ñi apprécier ko ne ne la lii mën nga si évoluer par exemple j'ai inter j'avais interprété le rôle de Linda okay. dans Kosunu. J'ai interprété aussi le rôle de L, ça s'appelle L seulement, lettre L, mhm. dans L'Abcès. Je travaille là-dessus avec euh, des amis comédiens, des collègues. Donc c'était des rôles qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup frappé. Mm -hmm. Même aussi, j'adore. Mais mhm. concernant la scène moom, ces deux rôles, j'ai trop aimé. En, en, parlant de Linda, c'est une personnage boo xam ne boo xamante ni euh, ça part au fond de l'Afrique leneen ngay dund mën naa ne ñag yi mhm. voilà ñu indi foofu beneen affaire boo xam ne c'était extraordinaire ce qui m'a permis de tester mes capacités mhm. le ce que je peux faire en tant que comédienne loolu xam naa ko foofu mhm. voilà mais à part loolu tu t'exprimes bien euh, jàng bi fu mu toll ba je suis en deuxième année à l'université virtuelle du Sénégal mhm, kon yaa ngi jàng ba tey alors si cinéma am ñu dugg ci série jabaru góor gi ci lañ la xamee série bi nag dinañ ko toj tey parce que série bi ba muy doogay commencé nit ñi dañ la yërëmoon amoon yërmande benn jeune bu coquette bu bëgg ak genre bu boo xam ne euh, moroomam lay bëgg sëyal après ñu ñoo jox ko benn benn pas déjà rôle bi ban la ko waxee ne la loolu ngay joué ban impression nga ci njëkk am bon je me suis dit que comme d'habitude je voulais même chose que j'ai eu à ça allait au-delà de ce que je faisais. Okay. Mhm. C'est-à-dire les émotions, tout que je suis. Comme Sadia, c'est quelqu'un de une fille complexe. Bon, à tout moment, on change de situation. Donc, ça été ben, ben de ce que je faisais. Voilà. Mm -hmm. Mais est-ce que surprendre le rôle Est-ce qu'il y a un blocage Blocage ou quelque chose non. comme ça dañ ko aimé nag Sadia dafa tombé nag ñuy débat ci ay sugar daddy yeeg. oui ok <laughs> moo taxoon ma laaj la question boobu parce que débat boobu dafa dafa amoon après ñu jékki-jékki série bi génn. Mhm. après nga interprété ko début bi ñu bëri ñu ngi naan ngay waxee sa yaay. góor gi waroon nga ko nangu parce que nii nii ak nu muy doxalee këram góor bu responsable la ren mhm. retour nga ci am depuis bi wax début bi après ñu mhm. ñëw ci ban retour nga ci am déjà ci ci retour yi ma ci am mooy <laughs> xam nga Sénégal fii c'est très compliqué de séparer euh, la personne le personnage c'est mhm. très difficile donc du coup souvent on me dit que réellement que dama am faru pas moo tax je maîtrise <laughs> que <laughs> ma mën a maîtriser pas yi mhm. souvent aussi ñuy wax que ñi ànd ak Sadia ci li muy def c'est parce que ñoom aussi dañu am ay faru pas moo tax dañuy évoluer ci monde boobu mhm. bref mais euh, retour yi ma ci am ça a été positif retour yi ma ci am euh, les gens ont bien aimé le rôle de Sadia bien parce que dañ ko gis mu màgg mu changer mu évoluer carrément Mhm. donc ils ont bien aimé retour yooyu laa ci am. alo début bi ci rôle bi ñu bëri dafa am ñu dund loolu ah mariage forcé mun mhm. naa ko wax ñoo xam ne dañuy dañuy ñëw seen yaay bëgg leen may kenn pour pour alal déjà est-ce que amoo yenn anecdote yoo xam ne nit woo na la ne la li Sadia doon dund depuis début bi man dund naa ko. presque chaque jour je dirais je reçois ce genre de commentaires ou de message ou bien face à face être dans des salons de coiffure par exemple j'ai vécu la même chose donc à chaque fois ma lay xool ci commencement bi damay ànd ak yow di jooy mais après j'ai compris beaucoup de choses aussi mhm. voilà loolu laay am comme retour il y a beaucoup de filles nga xam ne dund nañ loolu te dafa métti ñenn ñi dañ ne voilà maintenant ça va suis un peu à mais une fois ma seetaan série bi ça m'a rappelé beaucoup de choses ça fait toujours mal donc je partage avec elle la souffrance mhm. ma wax leen sama expérience côté rôle bi dalal leen delloo si leen un Mhm. voilà parce que rôle bi ça m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses. beaucoup de choses ay histoire yenn ñu lay nettali bu wane ne loolu sax am na am na si kii bi alors euh, si pour l'amour d'une mère nga accepté. c'est-à-dire accepté mhm. ci ci ci ak. ak ak ak benn koo xam ne bëgg ko par exemple ñu wax sa pas mais koo xam ne bëgg ko mhm. de manière générale yooyu tamit euh, am na ñu bëri ñu koy dund ñu si gis seen bopp révolté wu nga def nga lu nekk mais après finalement accepté nga sa mhm. kii loolu loolu leen xaar ma jàllaa ko war a laaj wala scénariste bi genre loolu étape boobu nga jël génn dem beneen étape boo des dem sëy est-ce que rôle bi ni nga ko joué noonu xaw la un peu déstabilisé Mmh, non. Non. Ouais, parce que je me base juste du côté boobu dans le cadre d'interprétation. D'accord. Voilà. mais amul benn moment boo xam ne touché na la en tant que yow jigéen. Mhm. bu nga mettre dans la peau d'une femme qui vit ça. bien sûr parce que au moment wu nga war a euh, jàmmaarloo ak sa yaay c'est inimaginable. Mhm. nga jàmmaarloo moom sa yaay wax waaw nga ne déedéet à la base on peut dire que les parents ont toujours raison mën nañ wax loolu mais benn moment aussi c'est à vie c'est ton avenir léegi nag bu demee ba parents yi war a taxaw nga taxaw ñu wax waaw ne déedéet c'est compliqué même bu dee rôle la chose c'est ça c'est très mhm. alors retour yu ma am euh, ci ñenn ñi genre nee nañ début bit da nga xaw a am complexe si góor gi ah comme est-ce que loolu si scénario bi la bokkoon ni nga ko joué dafa xawoon am timidité après reste bon quatre euh, à partir épisode 80 ba jëm kaw si nga gën a relax est-ce que c'est vrai ça. non je n'étais pas bloquée peut-être j'étais mhm. toujours dans la Sadia qui n'aimait pas Gorgui et maintenant je commence à aimer Gorgui mhm. c'est le rôle quoi. Mhm. noonu laa ko mën a bi kon loolu. c'était juste le jeu ouais. te le jeu. Mhm. alors ci série bi tamit nga dem am na ñoo xam ne dund nañ ko ba tey ñu ngi dund souffrance. Mhm. boo xam ne nobbuñu seen jëkkër yow nga ñëw nag euh, changé Fatia ñëw changé nopp jëkkëram est-ce que amoo tamit ay retours yoo xam ne. bien sûr nit parce que da nga da ngeen raté scénario bi wala quelque mais ça toujours le cours du scénario. am na ñoo xamante ni dañ naan ci yow laa gëmee ne jigéen du bëgg day mim dama ko doon dégg ci olof ci olof mhm. mais gis naa ni c'est vrai. et mhm. effectivement boo toppee évolution scénario bi tu sais que ça a évolué tëbuñu benn yoon jóge fii rek ñëw fii. sa mhm. a évolué avec la patience de góor gi muy damp nank nank neexal fii nank nank sama xel di ñëw di ma yedd et tout pour jóge fii dem ci keneen wala jóge fii dem ci leneen mhm. parce que boo xoolee ci début bi y avait mon copain donc au fil euh, au cours de l'histoire mu abandonné ma donc je n'avais plus espoir mhm. donc li ma doon def mooy jéem a wàccee sama xol ba pare euh, fekk si góor gi ci ay effort am mhm. voilà suñu resté ci scénario bi. côté boobu nag je félicite Hade Dia parce que jàngal nañu góor dafa war a tey bu bëggee am dara. macha allah <laughs> loolu moom euh, apprécier naa loolu après beneen aspect ci série bi mooy coépouse yi. Oh. parce que laa am nga dualité bu métti ak Dieynaba non Dieynaba bëggoon naa ko teg fii non na la <laughs> sonal na sérieux alors aspect polygamie ci biir kër mhm. déjà yow yow Fatwa mhm. ban xalaat nga ci am ba li ma ci jàng mooy ak xalaat bi ak mhm. rôle bi que la vie n'est pas compliquée il faut juste apprendre à s'accepter c'est pas compliqué qu'importe la situation mais bu fekkante ni ku nekk nangu nga sa morom li mu doon wala position bi mu am mhm. doo sonn donc tu peux vivre facilement sans aucun souci le problème est que dañuy sóoraale du trop ba dañuy fàtte suñu bopp c'est le cas de Dieynaba <laughs> il est tout le temps occupé par Sadia mhm. Sadia lu muy def lu muy naan or oh, que man faalewu ko lijjantiwu ko mhm. suñu desee ci scénario bi donc c'est ça la vie n'est pas compliquée mais aussi j'ai trop façon nit loo nangul bu ko nangu ne sois pas hypocrite hypocrite loo bëggul bëggoo ko ba ñëpp xam la ci après on va trouver une solution mm-hmm. tournage est-ce que méttiwul ak Dieynaba parce que des fois <laughs> non des fois tournage yi expliqué ma ak Dieynaba parce que Aram amul problème moom Aram moom dafa sedd moom voilà amul benn problème moom dafa sedd moom mais Dieynaba même <laughs> coupée elle continue son jeu baa baa dara sama la vie dure mm-hmm. mais machallah ça reste la famille ça ça reste ça reste l'amour quoi machallah laay wax tout ça ça ne sort pas du cadre dans le cadre du travail ñi continuer di liggéey di bëggante ci kaf ak ci foo ci rey. Mhm. est-ce que mosoo leen tourner après nga pare nga mer nag. no jamais. wala moom mu mer des fois nga kii ko de ko parce que ko bas yu métti daal di koy daal di koy xaw a tendance noonu. non même pas. du mer no du mer. Mhm. parce que moom aussi macha allah elle est comédienne de base donc y a base qui est là on maîtrise la chose je dirais donc amu fi loolu mosu fi am. mosu alors ban séquence boo xam ne nag ça tapisserie bi. quand Gorgui a voulu faire euh, lune de miel bi. Uh-huh. waaw boobu ça m'a marqué. pourquoi parce que je me suis laissée aller je me suis défoulée xuloo na ak moom wax na ak moom là j'étais naturelle. Uh-huh. que je n'ai pas voulu à fond me touche. ok c'est ça. kon amoon nga problème pour pour Gorgui. yenn séquences yi yoo xam ne. non pas de problème mais parfois tu joues et tu sens que tu as bien fait. ok c'est ça donc ça m'a beaucoup plu. est am na séquence boo xam ne tamit euh, toog nga sa kër seetaan ko nga ne non mënoon naa ko gën a def mu gën a baax. oui ça arrive parfois da ngay dem même bu ñu coupé sax ba ñu valider séquence boobu tu te dis que je pourrais je pouvais mieux faire. mënoon mhm. naa ko def mu gën a baax mënoon naa fa dugal lii mënoon naa wax lii ça arrive souvent. Mhm. mais am na bu la bu par exemple boo xam ne tu l'as regretté est am na séquence boo xam ne regretté nga ko. regretter ci ban sens. genre nga ne non nga xaw a tooñ tuuti scénariste bi ne non waru woon bind lii parce que gêné na ma ba ma koy sa yaay li nga ko doon wax noonu gêné wul. non <laughs> alors euh, nuy dundee après succès bi. succès bi nga génn ci mbedd Sadia Sadia sa tour déjà dañ koy fàtte parce que noonu la noonu lay demee Sadia la la ñëpp di wooyee après nan nga dundee succès bi lan la changé sa vie hmm. li mu changé sama vie je dirais pas grand chose parce que naturellement euh, dañuy def ala yaay faal dundee ko noonu naturellement oyof bi moo fi nekk ak niñ daan dundee démb ñu continuer di ko dundee tey faire de telle sorte que ça ça n'impacte pas notre vie négativement mhm. lool aussi on veille sur ça beneen bi mooy euh, li ma ci gën a marqué mooy j'ai eu benn benn rapprochement ak xale yi j'adore les enfants parce que je suis entourée de frères et de sœurs de base mais en plus amaat naa ci ñeneen ñoo xam dañu ñëw dooleeku si yaay sama mag yaay sama lii su ma rombee xale yi Sadia Sadia góor gi et tout ça j'adore les enfants donc loolu moo ma ci gën a neex ci ci ci surplus bi mu ajouté wu sama vie mm-hmm. voilà parce que dañu naan euh, acteurs yi wala actrices yi bu ñu commencé siiw dañuy commencé changer ay àndandoo waaye xarit bi un peu. loolu moom conséquence bi la parce que y a même des personnes qui s'attendent à ñoom dañuy nekk sur la défensive or que toi tu n'as pas changé donc on est là on veut on veut toujours les fréquenter mais ñoom dañuy yaakaar ni da nga changé donc c'est un peu compliqué voilà mais on reste toujours les mêmes personnes d'accord est-ce que Fatwa ak Sadia am nañ point commun am na loo xam ne ñoo ko nduróole oui en tant que ba mooy lan mooy euh, benn côté bu bu sombre benn côté bu bu rebelle voilà c'est ça parce que benn moment tu vois une Sadia douce tant que kobosoo ko doo gis tàng mm-hmm. xolam ak mën xuloowam et c'est la même chose voilà loolu yéen ko kon ñoo ko nduróo presque benn la quoi voilà mm-hmm. alors loo xam ne nag tey Sadia wala boo Fatwa mën na conseiller Sadia ci série bi par exemple kenn man mi ay dali seetaan série bi mu naan su nekkoon moom nii laay defee nga jël mettre ko dans la peau <laughs> tey Fatwa conseiller Sadia loo koy wax mu yokk ko ci série bi mu yokk ko oui wala mu wàññi mu gën a jonge mm-hmm. <laughs> waa gën a jóge mhm. moytu jey na ba <laughs> parce que jey na ba lakkale na ba pare gën a jege yaayam mhm. voilà ah, surtout loolu amoon na benn temps benn temps voilà et, et je n'ai pas trop aimé ça mhm. voilà nekkul tu tu tu tout faire mën nga xuloo ku nekk mën nga gardeel mel ku nekk mais pas yaay parce que bu yàggee yow yaa ciy gaañu voilà c'est ça cinéma bi nag de manière générale jigéen gis nañ dugg nañ ci euh, bu njëkk ba dañuy gis ku xees la ñuy jël ci kii bi il faut nga xees pour ba ñu mën la teg euh, lumière yi mu gën a nice mais gis nañu xaar média moom day day valoriser moom peau noire moom damay gis lu bëri day da leen di valoriser loolu déjà est-ce que loolu ba mu daan am mhm. yow un peu toogoo nga ne non lii du ma ko du ma si mës a évoluer du ma si mës a réussir non amoo benn complexe quoi non parce que toujours euh, man sama principe mooy li may wax comme slogan gëm sa bopp ak ci yow ci li nga nekk ak talent peut-être bi la yàlla may mën nga ci évoluer donc c'est pas que le système est là rek on suit le système on peut changer le système à notre manière c'est-à-dire s'imposer fexe de telle sorte que ñun li ñuy jàpp ni gëm nañ jëm gëm nañ ko ñu évoluer ci c'est ça mais maintenant j'apprécie trop changement bi am parce que man je suis tout ce qui est contre la euh, je n'aime pas la dépigmentation affaire yooyu noonu. ah doo laal tuuti nii pour leer hmm, tuuti. daal di kii non non non non non non. ça moom voilà boo okay. xoolee sur mes pages c'est Black Fatwa donc je valorise la peau noire et je pousse aux filles à rester noires authentiques et s'accepter comme comme comme elles sont. c'est ça la base donc loolu laay valoriser. loolu valoriser oui. donc amoo ci woon benn complexe. non benn complexe d'ailleurs je trouvais que même c'était mon point fort. Je trouvais que c'était mon point fort. Même sur les contrats que j'ai pu décrocher, sur les cinémas et tout ça, tout ça, c'était ma peau, grâce à ma peau. Peut-être le profil est là, le jeu est là, mais ma peau aussi. Ça m'a beaucoup permis de découvrir le cinéma. Mm -hmm. oui. Est-ce que tu de jouer Oui. Mmh. Tentation, ouais. Oui, il y a beaucoup de tentations. Est-ce que, mais... est-ce que mosquée c'est tout de l'or Bah, hmm, parfois, du ay propositions ay propositions yoo xamante ni ça va euh, ci beneen chemin boobu boo xamante ni jaaroo fa du ñàkk mais. est que mën nga ñu ci raconter benn anecdote boo xam ne metti na la trop. Hmm, su ma xalaatee benn anecdote ci côté boobu mooy. Mhm. souvent dañuy xam ni par exemple rôle bi yow yaa ko moom wala yow mën nañ la jël ci lii mais peut-être gëm-gëm bi ngay demee ak fulla bi ngay demee du arranger ñenn ñi. donc loolu moo tax dañ lay écraser dañ lay tëjal porte yëpp foo foo fëgg day dëgër c'est parce que danga am fulla da nga gëm sa bopp loolu moom dund naa ko ci mu marqué ma ci milieu bi mhm. voilà loolu la mais est am na proposition indécente genre boo bëggee jouer ci lii lii ngay def non non loolu moom mosuma ko dund mosoo ko dund vraiment mhm. Mhm. alors euh, si si si loolu nag buñ ci jàllee ñu bëri dañ naan da nga simple te maki pas trop même si ay TikTok non kii daal des fois day make up sax make up bu saf sàpp waaye ci xew bi la make up après daf la jàpp ak yooyu noonu donc lu tax euh, simplicité boobu c'est yow la wala boog yaa ko imposé nii lay mm, non man la personnellement mm. personnellement et de base man je fais du make up je fais du make-up beneen côté c'est mon travail loolu mm. laay def parfois je fais du make les ongles les cils par exemple mais comme fi ma par exemple fi ma jaar boo nekkee sur la scène dañ lay gëmloo ko ni lépp lépp lépp lépp yaay faal bi la lépp lépp simplicité bi la voilà c'est ça mm-hmm. donc peut-être loolu la ñu màggaale évoluer ak loolu on n'est pas trop trop trop artificiel donc quand je dis que je défends tout ce qui est la peau noire tout ce qui est la femme africaine donc ça va à l'envers ak les maquillages et tout ça voilà on, on adore l'Afrique mm -hmm. voilà <laughs> alors duma ñëw fii nag euh, ba dem te laajuma la loo xam ne ñu bëri dañ ko apprécier mooy sa relation ak Oumaya loolu nag ma ñëw ba fii ba laajuma la ko xam naa ne kon kii moom dootoo am interview alors dangeen ngeen xamante woon avant série bi wala si biir série bi ngeen xamante. Euh, première séquence bi ñu joué man ak moom mooy épisode numéro 1 bi ci laa koy doog a gis c'était la première fois voilà. donc musu musuma ko gis. mais complicité bi attends kon kon yéen ñaar complicité bi ngeen am ci série bi nii lan la da ngeen ko da ngeen gisee après tournage yi. mësuñu gisee sax après tournage à chaque fois bu ñu gisantee tournage yi la après mu ñibbi ma ñibbi mais on s'adore beneen bi aussi euh, am na euh, complicité boo xam ne c'est c'est derrière la caméra dañ koy dund derrière la caméra voilà juste pour améliorer le jeu et tout laay wax mais seen relation da nga ko gisee sénégalais ñu ko apprécier naan amitié xarit nii lay mel mu ne dañ koy wax ci seen relation. c'est juste qu'on a réussi le rôle. Mhm. c'est ça noonu laa ko noonu laa koy tuddee ah on a réussi le rôle c'est juste ça. Mhm. Mhm. mis à part nag série yeeg yooyu TikTok yi TikTok yi bëggoon naa la kii ay vidéo yi ngay def naa yi àqul bi rek nekk naa yaa taal son bi <laughs> son bi yaa taal ñëpp di TikTok alors TikTok bi nan nga gisee. mouvance bi léegi ñëpp ciy dem ñëpp ci kii des fois gis naa la yow moom euh, bokk nga ci ñu gën a yiw ñoo xam ne duñu duñu duñu wane yenn yenn cër yi ci TikTok mm-hmm. nan nga gisee application boobu ak sénégalais yi ñu ko jëlee déjà euh, li may wax rek mooy à chaque fois ak lépp lu mënti xew que ça soit TikTok YouTube bu mu la détourné ci say objectifs mun nga nekk ci TikTok à fond à 100 pour cent mais garde tes objectifs en vue loolu rek laa ciy wax. Mhm. voilà faut être concentré c' est pas que ngi ci ñëpp ñi ngi ci ñi ngi ciy dem ñi ngi ambiance ñi ngi kaf ñi ngi foo ñi mais tu vois même sur TikTok des gens yoo xam ne ils gagnent de l' sur TikTok c' est possible donc restons juste concentrés. Mhm. voilà yow mais yow lan la lay apporter application application bi ça m'apporte de la visibilité de un tu peux aussi gagner par exemple ay collaboration exemple ay publicité te loolu ñëpp xam nañ ko tu peux dire que instant bi y 40 pour cent 50 pour cent des jeunes yoo xam ne léegi ay influenceurs lañ. Mhm. dañuy liggéey te dañuy gagner de l'argent grâce à l'application. Mmh. voilà alors est-ce que ce métier mu ngi mu lay dundal maanaam euh, théâtre bi yaa ngi ci gis sa bopp bu baax. wala cinéma bi. oui maa ngi ciy gis sa bopp waaw. kon yow amoo benn problème de paiement ay problème de euh, lii nii euh, actrices yi bokk acteurs yi problème yi am yow amoo ci amoo ci benn problème boo ci dund. parfois il y a des mhm. du ñàkk parce que kër sax dafay am problème. même euh, entreprise yi gën a mag parfois dafay am problème souvent virement bi dina tardé yéen waa Sénégal souvent da ngeen am problème boobu. non non ñun dañu fay la ah, du ñàkk dafay am parfois des soucis virement dina tardé patati patata mais la base c'est la famille c'est la communication c'est la compréhension te loolu moo am fépp donc loolu moo am fii donc on vit de ça on se comprend. on nous paye on gagne te doy noo nañ li ñu am. Mhm. donc leneen lu ñëwaat aussi dañuy sant yàlla dem ci loolu. Mhm. instant bi yaa ngi xaar média est-ce maison de production yeneen ñu ngi lay démarcher pour pour yeneen série wala yeneen film. waaw du ñàkk. Mhm. mais nañ xaar. nañ xaar de ah? waaw. alors 100 épisodes nag xaar euh, média est-ce que tamit duñ toog sa wet ma laaj leen 100 épisodes tamit ñun tamit ay 3 séquences lañ ñuy defal tamit fu mu nar a neexee ñu daggee ko fa defal ñu 5 minutes publicité. en tout cas loolu tamit kama kay kaste. waaw am nga ci droit <laughs> li may wax mooy euh, jabar góor gi moom mi ngi euh, mi ngi denc yeneen surprise yu gën a mag yu gën a mag yu gën a mag. parce que à mhm. chaque fois ay suspense la ay secret la te on que population bi bëgg nañ ko bu baax a donc ñu ciy liggéey bu baax a baax te xaar média ñu ngi def des pas à la euh, vers l'avant autant pour moi pour euh, gën a bégal sénégalais yi jox leen ñoom li ñu bëgg ak li nga xam ne moo adapté wu ak seen i si c'est ça. parce que ak bu juppeel sorgho. yooyu yëpp noonu. de société quoi. oui c'est ça. oui loolu moom c'est c'est vrai alors sa humour foo ko jëlee foofu la ñuy jeexalee sa humour. naturel. non humoriste nga wala loo doon. <laughs> en tout cas sa vidéo ci da ngay jéem a reetaanloo nit ñi wala quelque chose comme ça wala c'est naturel. c'est naturel chez moi euh, bu dul TikTok bi c'est naturel chez moi. Hmm, bu fii léegi doo mer de. baadu non. <laughs> baax na alors euh, nan nga nan ngay tàggatoo balaa ngay tàggatoo gars yi yóbbante nañ ma nee nañu. Mhm. parce que célibataire parce que teint bi rafet na. taay baax na. <laughs> Ah! parce que gars yi sonal si Instagram bi bind kaay ma takk la. ak yooyu noonu. parce que doo dund yooyu. prétendant est-ce que bëriwul. mënul ñàkk ay ñaata prétendant gars yi moom bàyyiwuñu kenn ay 100 yi moom bàyyiwuñ kenn. Mhm. bàyyiwuñ kenn mais à chaque fois rek tekk ak tey mooy may lépp donc ñoo ngi fi daal. ah cœur à prendre wala gars yi nañu arrière. <laughs> non je laisse <laughs> looy tàggatoo ak looy wax say fans bi la doon seetaan. donc li may tàggatoo mooy euh, on est des jeunes donc. man benn benn moo laa faral di di wax lu bari bari. Mhm. mooy liggéey nit da ngay gëm liggéey. donc liggéey moo nekk loo xam ne à chaque fois di nga ko mën a ndamoo mën na nekk sa trésor te du la mës a trahir mën nañu wax nit ak nit yaay doom wala xarit ak xarit trahison am fii déception am fii mais liggéey du la mës a trahir donc nit da ngay gëm sa bopp liggéey. Mhm. kenn du la yëpp. voilà loolu laay loolu laay loolu laay wax. ak euh, sa fan si la bëgg tamit ñoo xam ne yaakamti woon nañ peut-être gis la nga wax si interview wala yooyu noonu. loolu leen di wax sama fan si boobu aw ma seen fay <laughs> am na si ñoo xamante ni. waaw xaw ma sax lu tax ñu bëgg ma. lu nekk la ñuy def pour Sadia. xaw ma xaw ma lu tax loolu tamit touché na ma trop am na bokk na ci li nga xamante ni. mooy li ma gën a marqué ci sama sama sama sama dund ci Sadia. Mhm. donc da ngay gis ay nit yoo xamante ni da leen di jaral lu nekk lu nekk lu nekk donc ñooñu. peut-être ñoom ñooy tax ñu gën a góor góorgóorlu ñooy gën a tax ñu gën a moytu ba du ñu am benn déception bi ci Sadia wala ci euh, Fatwa en tant que actrice donc ñi ngi leen di bàyyi xel bu baax te ñi ngi leen di remercier aussi parce que ku la bëgg a amoo fayam. d'accord voilà. alors ban TikTok moo la gën a neex doon kiiwal nii benn affaire nag nga bàyyee nii de nga bàyyee nii de foo nga defal benn affaire sax boo xam ne ñu doon reetaan comme yow nee na yow ku ma toogoon fii ma toj di nga ñu defal loo xam naa reetaan. léegi yow lan nga bëgg ma ah, xaw ma de tegal musique wala nga xam looy def. <laughs> sama tiktok bu ma gën a marqué. bu ma gën a marqué nga defal ñu ko encore nga répété waat ko. ma répété waat ko man mii que yow amoo bu la gën a marqué nga wax ma ko parce de man li ma seetaan si yow bari de. dama la fi waxal ay Fatou Mbaye ak Jali bu ñuul de est-ce que yow mosoo ko def. je crois que mosoo ko noonu léegi danaa la defal benn TikTok. spécialement pour yow ma envoyé la. jeex na je remercie tout le monde ma famille. di njëkkee ci eh, ñi nga xam ne ñoo ma gëm. Mhm. voilà donc su may wax ñi ma gëm nag je parle de d'abord ma famille. maa ngi wax aussi Xaar Média parce que c'est pas simple nga gis nit rek rek jàpp nii li nga bëgg dina la ko jox. Mhm. nga bañ ko xeeb. parce que bu ñu waxee ci ay affaire audiovisuelle yooyu aussi peut-être am na ci mën nañ la gis tëkkale la ak kee xeeb la jël kii bàyyi kii mais peut-être ici aussi yàlla a le mérite y a talent qu'on recherche donc liggéey moo fi am maa ngi leen di remercier bu baax ci rôle bi ñu ma attribué donc on espère jouer d'autres rôles incha allah maa ngi remercier sama famille di remercier aussi sama entourage samay xarit ak fans yi voilà à part ça aussi euh, métier acting bi entreprenante Euh, bu ma waxee études ba pare donc j'adore entreprendre am naa une boutique en ligne qui s'appelle Mofa Collection et beneen boo xamante ni ça évolue dans le cosmétique éthique donc euh, ci loolu la nekk donc on espère aussi faire d'autres choses dans le cadre de l'entrepreneuriat incha allah au Sénégal uh-huh. parce que ñun Sénégal lañ am. lu mu métti métti à bi. Mm-hmm. cosmétique produits donc voilà. pour ñi nga xamante ni dañ may laaj à chaque fois lan laay diwoo lan laay def sama teint ban produit laay utiliser souvent on man j'ai la peau grasse donc j'ai fait des euh, recherches là-dessus pour apporter benn remède boo xam ne peut-être ça peut aider les filles qui souffrent de de la même chose donc ñu traité seen peau grasse teint noir bi aussi dinañ indi ay euh, lait de corps pour teint noir bi incha allahu rabbi mhm. pour pour euh, vêtement lan voilà ligne de vêtement bi voilà mooy Mofa collection mhm. donc day def tout ce qui est prêt-à-porter aussi donc dafa mêler euh, le traditionnel et le moderne loolu laa leen bëgg a proposer te instant bi mi ngi nekk di évoluer parce que depuis 2019 ligne de vêtement bi mi ngi progresser petit à petit voilà. ah kon nga xaalis de. allah ah nga xaalis. millionnaire nga de. oh amin millionnaire nga. amin da ngeen doon defal TikTok dara dañuy nii nii nii. koy leb. dama koy baax